magum jëmm ku taxaw ci média wax troisième lii du si am mhm. population bi yëpp àndu ci mhm. nit def dafa war respecter kàddam jaraam yi fidèle internet Sunugal 24 am nañu mbégte bu baax nuyooti leen seen jotaay bu am solo bi la di xalimba gu ñëw am mbégte dalal ci koo xam ne du gan ci ñun waaye du gan ci yéen ñiy bàyyi xel sunuy programme waxtu wu nekk ndax bari na loolu lu fi jaar di fi amal ay jotaay yu xam-xam Thierno Amadou Sow joni joni maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Mansour maa leen di nuyu sa àndandoo ñëpp surtout groupe Sénégal suñu gaal 24. maa ngi lay nuyu ñëpp ki nga xam ne mooy jiite bo si suuf yëpp bàyyi woom kenn daal guur ak jigéen incha allah. macha allah Thierno Amadou ku ko xam xam ne pël la boo xam ne bu respecté aadaam ak cosaanam la. des fois sax ndakaaru gëj koo gis fan lay nekk des fois. waaw man de Mansour la gën a bari sax man sama client yi. ku nekk xam na ne eh, àll boobu daanaka lu bëree bari ci ay eh, garab yoo xamante ni moom la ñu war di jëriñoo daanaka foofu lay bàyyeekoo ci àll bi léegi fi ñuy njëkkee ak yow Thierno du mooy wàllu seet ku xam eh, Thierno Amadou xam ne ku am cër la ci wàllu seet. Mhm. yan seet ngay def. waaw wàllu seet bare na ay façon Mansour seet euh, hmm. mooy yu ñu fekkee ak li nga xam ne dañ ko jàng bu ñuy nekkee xale hmm. mooy seet suuf mooy wàllu jooñ jooñ hmm. boo déggee wàllu jooñ jooñ yu toujours dàkkanteel wàllu jooñ mooy seet suuf bi la boobu nag dañ ko foowee seet boobu nag lépp li nga xam ne nekk na si doomi aadama bi yàlla mun la ne ko woon léegi léegi incha allah mooy li nga xam ne seet si biir réew mi ak si pij réew mi yëpp ñaari junni laa koy seete mooy wàllu ni nga xam ne mooy surtout si wàllu suñu aad ak cosaan mhm. beneen seet bi tamit mooy wàllu peer bi ngay gis fii nii ah, lii wàllu li gën a bari si wàllu ay nasaraan la hmm. wàllu nit yu weex wala bokkuñu ay diine père mariage moom itam seet waaw mooy père marias yi nii mhm. moom laa gën a jàppee si wàllu nit yooyu incha allah mhm. mais bu fekkee suñu cosaan moom incha allah mooy seet suuf bi mooy wàllu jooñ jooñ incha allah rabbi ñuy wax ne seetu suuf maanaam mën na laa indi nit ki ay détaillé détaillé la ay mbiram ba sax bu xamul day jàpp ne ku ko xam moo ñëw wax ko say mbir lan mooy secret seet boobu. waaw loolu bare na li nga xam ne jàng nañu téere Ramli euh, seet suuf lu doy waar la. bu hmm. fekkee ak lu ñu wax ñun si pulaar mooy seet du fen boroomam mooy fen. waaw surtout hmm. nag si seet suuf bi. Hmm. seet suuf def lay génneel liy ñëw ay weer wala mu génne luy ñëw ay fan. wala mu génne lu paase ay fan ay weer. wala mu tettal la ak li xam ne ñi nga sekkal ak waxtaan wala lu mu munti doon si kaw suuf seet suuf def la ko génne bu fekkee mun nga mhm. jaarale la nga ko yoon nu mu war a jaare incha allah li si nekk boo ko génne incha allah yàlla mun naa la jàppale lépp looy mbébét ci kaw suuf nga mun ko am incha allah rabbi macha allah ki nekk bitim réew moom itam mën nga koo seetal par téléphone sans nga koy gis waaw seet suuf moom foo munti nekk si àdduna nga teewee ak ñàkk teewee ñëpp si yem sa tur laa soxla ak sa sant ak sa at loolu kese laa si soxla allah lépp li nekk si yow mun naa la ko leeral bu si yàlla andee incha allah. voilà ma taxawaat tuuti ci seet gi parce que dafa am ñoo xam ne seen ak seet day nekk ci seen doom bu réer la. Mm-hmm. dem lu yàgg gisuñu ko. Mm-hmm. wala ki yor jur mu réer ko. Mm-hmm. wala sax ki yor alalam. mu réer ko. kooku façon seet bi ci nga koy seetee wala beneen la. waaw boobu moo gën a gaaw si loolu sax bu fekkee da nga réerle wàllu jur wala sa doom walla lu mu munti doon si àdduna bu fekkee day ñëwaat sa loxo. suuf bi def la koy génneel fat fat bu fekkee day delluwaat sa loxo Mhm. boo àdduna tukki wala ba àdduna tukki wut di nga gisaat mhm. wala dootoo ko gisaat def la koy génneel incha allah rabbi surtout nag si wàllu seet suuf bi incha allah macha allah muy lu am solo numéro yaa ngi noonu ci suufu écran bi bu ngeen ci jaaree jokkoog moom dis ko seen ay ajo mu daal di si taxaw dindi liggéey moom itam ko xam pël xam ne am na ci cër bu am solo mhm. fu nit euh, yëgee ne ab liggéeyang ci moom bu gisante kenn ci yéen ko am xam-xam mu daal di ko dindi mais yow itam nga am ci cër bu am solo noo koy dindee waaw wàllu wàllu li nga xam ne loolu mooy wàllu càngat li nga xam ne mooy wàllu cat mooy wàllu cat wàllu bot wàllu liggéey mm-hmm. wàllu ay li nga xam ne wàllu seytaane nga jog ay liggéey wala ay chat seytaane wala ay bot seytaane loolu lépp wàllu li gàllankoor doomi aadama la doomi aadama du doomi aadama kese moo koy gàllankoor li koy gàllankoor bare na ngelaw dafa bokk si wàllu seytaane jog si liggéey loolu dafa bokk si wàllu seytaane cat wàllu seytaane dafa am bot wàllu seytaane dafa am loolu nag dafa am li xam ne dañ ko fekkee dañ ko xam xamaat ko jàng ko segaat ko boo ko defee incha allah nga utiliser ko sa yaram lépp li nga xam ne lu bon muy nekk sa yaram day deñ képp ki nga xam ne tamit def na la lu bon day delluwaat ba si moom ba nga gisal sa bopp bu fekkee dañ ko utiliser nañ ko war a utiliser incha allah sunguf dafa am ay façon yu bari mm-hmm. waaw dafa bari ay façon yi nga xam ne dafa wutee incha allah ci foofu laa doon taxaw sax muy li nga wax noonu ci sunguf ku euh, ku ne xam na ne pël daanaka li ëpp ci liggéeyam da koy tënk ci reen xas xob ay gàncax ci gàttal dëgg la xam-xam bi fan ngeen koy jëlee dëgg-dëgg waaw loolu xaw na yàgga loolu xaw na yàgga depuis suñu maam depuis avant yeneen sax ñu liggéey si wàllu sunguf wàllu fas wàllu reen mm-hmm. wàllu euh, xas li nga wax sànq mm-hmm. lépp dañ ko fekke incha allah dafa am li nga xam ne nag euh, sunguf dafa am lu mooy laajte nga def ko mm-hmm. boo xoolee li diw ñor la mm-hmm. diw ñor li gën a bari dañ ko taam si wàllu lekk waay ak li ñu xam gis naa Amadou moom jooni jooni ñëw teg ko waaw man bagaasam waaw am na ay sunguf yi nga xam ne da ngay da koy boole ak diw ñor diw ñor boobu boo ko boole ak sunguf da nga koy mooñaale ak sunguf bi mm-hmm. boo koy sangu ngay utiliser mm-hmm. am nga diw ñor moom si nag lay jore jógee li gën a mm-hmm. bari mm-hmm. mais fekkee ay wàllu xar la wàllu béy moom yaakaar naa nit réew yi taax yi mosuñu gis diw ñor bu jógee si wàllu xar wala wàllu béy waaw dañ ko gis si butéel rek mais ñun xam nañ secret yu nekk si biir boo utiliser diw ñor boobu ak sunguf bi sa yaram loolu wàllu am am la wàllu am amul nit ku ñuul fii nag amul nit ku weex presque boo ko tuuree fii ni suuf melentaan façon bu de ñëw si moom loolu mooy firnde bi incha allah loolu nag sec beneen secret la. Mhm. incha allah rabbi dinaa ci taxaw ci ubbeeku bi nga tudd noonu parce que mënul ñàkk ñu taxaw ci euh, pël bu ñàkk wërsëg yombut a gis. Mhm. waaw loolu dafa am li nga xam ne ni ñu koy waxee si pulaar mooy fogo. fogo waaw fogo mooy fogo li nga xam ne. Mhm. bi nga juddoo. léegi ma dégg pël waaw fogo mooy li nga xam ne booy juddoo. <laughs> foofu lañ koy commencé def. loolu nag yombut xam am na ñi nga xam ne juddoo nañu Dakar fii nii xamañu ko. waaw waaw loolu am pagay. Ah ah, boo xoolee. mag yu njëkk yi bu ñu doon sëy mhm. nit bu doon sëy maye jabar doomam avant muy génn néeg yaayam foofu lañ koy sangu si digg lal bi dañuy doon di nekk si digg lal bi sangu ko ci digg lal bi mm. kon dèjà yooyu tamit yëpp amatul tey mhm. mais secret yi nga xam ne ba tey am ñu ko ñu nga xam ne dese nañu secret boobu incha allah macha allah dina taxawaat ci Euh, sunguf yi ma fi seen ak euh, butéel yeeg euh, lu ci nekk ñu dem ko décortiquer xam ci lan lay dox. Mm-hmm. Thierno Amadou Sow joni joni moom ngeen àndal ci jotaay bi la di xalima gu ñëw. lapp taake nga am ci yu doy mm-hmm. ko xam joni joni xam ne loxo du jóg jëm ci kawam. dëgg la wàllu lappitaake bari na ñi xam ne dañu tudd wàllu lappitaake mais xamuñu. waaw tur yi moom bari na tur yi moom bari na mais xamuñu wàllu lappitaake ak lu ñu fekkee ak lu ñu xam wàllu lappataake bu ñu xam li nga xam ne ja baatin bi nekk si biir mm-hmm. mooy bu tawee liy yëngatu ci dënn euh, non non liy yëngatu ci taaku ndox yi mm-hmm. xam mbott lu ñu waaw loolu si mbott lañ koy dindi nga soo ko def mm-hmm. presque boo ko defee sax si biir kër sa doom yaa ngi foofu mun nañ foo ñu door la problème boobu am loolu nag li nga xam ne. boo boo ci mbottu li ngeen liggéey ci mbottu lay bàyyi ko koy liggéeyee nit ki mhm. utiliser ko. mais boo déggee sama wax. Mhm. boo ñëwaatee sa si biir kër da koy dindi. Mhm. boo ko wekk sa si biir kër. mais boo génnee pour doxantu pour dem. def ko sa yaram incha allah képp ki xam ne dóor na la foofu lay tidd li ma la wax nag nooy def boo boo xoo ko ba dindi ko waaw. ba sa baaraan bii nii bu mag bi. sa tànk. Mm-hmm. mais gauche lay doon sa tànk gauche lay doon mm-hmm. ngay doggal si gannaawam ñetti yoon fi léegi ko du jog waaw boo deful loolu foofu lay dee am na li nga xam ne nag eh, yooyu neexul wax si si wàllu si mm-hmm. média euh, li nga xam ne dafa doy waar mais lapitaay li nga xam ne même nit ki mënul yëkkati loo xam lépp si biir lapitaay kele bokk bari na ay façon yi nga xam ne nekk na si te bokkut ay façon incha allah macha allah xam-xam daal euh, sunu mbokk pël yee ko yor euh, moom itam nga sawar ci lool mu mel balaa ngaa sawar a liggéeyal nit foog mu doon borom jom dëgg la soxla dara ñu ne ko doo ci jot mhm. mu taxaw ci xëccoo mhm. foo ko jaar waaw wàllu xëccoo mooy wàllu li nga xam nga wut nga bëgg am dara man tamit ma bëgg ko am mhm. ñun ñaar ñu koy xëccoo daal ak nu ñuy waxee incha allah am na li xam ne boo ko defee nga woo tur nit ki nga def ko si biir butil comme butil bu rouge bi ngay xool fii turu ki ngay xëccool waaw turu ki ngay xëccool comme munti doon si àddun nga tëj ko foofu Ah, li nga xam ne nga suul butéel bi lépp li nga xam ne yow ki ko def yaa ko soxla woon yaay gàddu ndam bi incha allah rabbi loolu moom amul bo dem ba gannaaw bo amul bo dem ba juróom-ñaari fan incha allah jooni jooni jooni jooni la boo ko defee nga tëj si biir butéel bi nga def ko si biir suuf presque caasugol lañ koy fase mhm. loolu moom nga ndam bi gàddu nga ko ba pare incha allah rabbi même bu président ngay xëccoo wala waaw côté président bari na li ma si xam mais hmm. loolu bokkul ak li nga xam ne loolu presque loolu dafa bokk si hmm. réew yi nga xam ne ngay dindal frontières yi hmm. côté yi nga dindal réew yi nu mu munti toll si yi nga bokk réew il faut que nga am suuf yi nga xam ne bokk na si frontières yi yëpp nga indi suuf boobu boo ko indi dafa am li nga xam ne dañu si def nga delluwaat ko fi nga ko jëlee woon incha allah lu mu munti doon si àdduna réew boobu yaay toog foofu wala ndam boobu yaa koy gàddu fi nga ko tibbee woon incha allah Mhm, voilà ñu ñëw ci eh, nopp nopp moom itam doon loo xamante ni seen mbir la dégg naa des fois di ngeen koy jaaree ci meewum béy xaw ma. waaw nopp euh, bare na ay façon yi nga xam ne dañ koy def nopp mun nga ko jaare si ñaari ganaar bu góor ak bu jigéen. bu fekkee si ñun waaw. am na ay noob bi nga xam ne dañ ko jaaree si noob euh, góor ak jigéen ñu jëlee ko si wàllu ganaar bu góor ak bu jigéen. Mhm. ñu def ko foofu buñ ko defee ba pare nga def ko yow góor mi sa jabar boo xoolee bu njëkk ganaar fu ñu doon dubbe dubuk ak fu ñu doon togge cin ñaari ñaari yooyu rek lay nekk waaw xam nga li ma la bu baax mm-hmm, mm-hmm. secret boobu bu ñu ko defee incha allah jigéen bi si boppam du génn fi nga xam ne jamono bi ñu toll tey amul fu ñu dubbee dubbu kër yi moom amañu ko mm-hmm. mais togg bi ak saar bi du génn foofu incha allah même bu demee kër seen waajur dina toog jékki-jékki indiwaat boppam du xam laal moo ko indiwaat loolu loolu si tànk ganaar lañ koy def bu fekkee jigéen bi moo def góor bi noonu la bu fekkee jigéen góor bi moo def noonu jigéen bi noonu la incha allah loolu beneen façon la mhm. am na beneen façon tamit loolu si wàllu tubéy nga koy def mooy wàllu sa eh, silip mhm. bu fekkee góor la bu fekkee jigéen la nga wootur góor ki juróom-ñaari yoon nga la ne sa tubéy bi toppe nara la toppe noonu incha allahu rabbi boo ko defee mhm. li si des nag si suuf laa koy waxee ma expliqué nga jëfandikoo incha allah dina la topp comme ne la sa tubéy bi toppe incha allah xam nga nit fu mu munti dem si àdduna tubiyaam mu ngi ko topp wala sa sër mun la topp incha allah. du tàggoog moom. ñaari façon yooyu moo si am mooy góor ak jigéen incha allah. macha allah. Mhm. ki bañ a am wujju nag. ki bañ am wujju yooyu tamit am na ay secret yi nga xam ne dafa xaw doy waar Mansour yooyu ñu ngi si biir incha allah waaw ku bañ a am wujju yooyu moom ah, parce que am na ñu fi nekk te bëgguñu wujju ah. am bagay loolu am na am na ñi nga xam ne jaral leen si lu ne. Mhm. wala bañ am wujju am na yi nga xam ne nag am na macha allah cosaan la. mais boo xisee fas def fas boobu tandig mhm. déedéet doo am wujj wujj du la fekk si sa kër moom incha allah si biir kër boobu moom wujj du si dugg xaw ma nag beneen kër mais si biir kër boobu wujj du si dugg incha allah macha allah mhm. ki nekk ci palace moom itam defa liggéey mais bëgg fa am tur ba nga xamante ni euh, kenn du ko fa mën a bundu xataal wala sax di ko fa génnee waaw loolu mooy wàllu li nga xam ne lu koy wax wàllu daaj wal waaw wàllu daaj mhm. wàllu daaj mooy li nga xam ne fengere lañ koy wax si pulaar xam nga daaj moom olof la mais feŋeer lañ koy wax si pulaar. boo déggee feŋeer mooy wàllu ngay liggéey benn béréb. seex natal ma boobu feŋeer waaw léegi benn béréb ngay liggéey nit yi bunt xatal na foofu ñu bëgg nga génn palace bi mais yow bëggoo génn si palace bi. Mhm. boo fekkee nga def foofu liggéey bi incha allah si biir place bi lu mu munti doon bu fekkee mënoo sangu foofu fekkeel nga jàpp ko foofu lu si des moo expliqué la noo koy jëfandikoo incha allah kenn mënul jëlee si biir place bi ku dul yàlla suñu borom mais en tant doomi aadama incha allah. bu dee ay tubaab la ko seqal nag. waaw bu fekkee ay tubaab nga ko seqal ba tey dafa am fasaŋam incha allah bu fekkee wàllu nit ku weex dafa am fasaŋam bu fekkee wàllu nit ku xam nga wax naa la si biir njàpp. Mhm. njàpp moom koy utiliser wàllu jullit la waaw mais wàllu tubaab nag bokkut ay façon mais dafa am yi nga xam ne dañ koy junj rek borom xel moo koy mottali. Mhm. loolu du lépp. li duuf lépp xaju si cin bi. déedéet li si nekk yëpp mënu ma ko wax si émission bi incha allah. sama pël bi dégg na olof de. Mhm. <laughs> mais ko sama pël bi dégg na olof. parce que mu ngi naan lu duuf ci nag bi. Mhm. xajul ci cin li. dégg la euh, beneen bi mooy ñi nga xamante ne dañuy nekk ci liggéey. Mhm. wala boog jëflanteeg ay nit. mais ay war di ci feeñ. waa loolu bokk na si yi nga xam ne jamono bu ñu toll tey nii kenn wuteewul am-am ndax leer. ndax alal bi lew na wala lewut. loolu bokk na si. xam am rek. waaw nañ am rek xam nga dèjà nekk nañ si akiri zamanu. Mhm. kon loolu lu doy waar nit ki dañu war a xoolaat seen bopp bu baax a baax. ndax nit ki boo nekkee sa biir ndey lu mot ñeent yoon wala juróom yoon def lay la fekki foofu. Mhm. kenn mënu si dara li ngay dund ak ñaat ndox ngay naan ak ñaata kilo ceeb ngay lekk. Mhm. foofu la lay fekk. li ngay nooy foofu la lay fekk. li nga war a am si kaw suuf lool foofu nga koy fekk mhm. kon yàlla boo ko notee kenn mënu ko dindi nit ki day sonal boppam rek mhm. mais nañu gum yàlla li nga xam ne lépp li nga xam ne war na dugg sa lox loolu fala boodu day dugg sa lox beneen doomi aadama mënu ko gàllankoor mais nit ki day sabablu mhm. yàlla moo ko njëkk wax da ngay sabablu bul wax yàlla baax na rek nga tëdd si benn place déedéet il faut nga def faux nga wuti ko nga jéem ko ñëfe incha allah def ko sa yaram macha allah. Mm-hmm. muy lu am solo mais des fois damay gis ñoo xamante ni ci yéen surtout euh, bu ñuy jëriñoo saafara la wala lu mën a doon ci leket lañ koy def pour sangoo lan mooy njëriñ bi. waaw leket dafa am bari secret yu si nekk bari na ay cosaan yu si nekk leket dafa am yi nga xam ne euh, boo koy def ci leket day gaaw a jàpp li nga xam ne mooy wàllu càngat cosaan lu ñu fekke lu ñu xam mm-hmm. léegi àdduna la yàqu nga def càngat si wàllu cin. wala si wàllu bool mhm. wala si leneen mais càngat bu ñu xamoon si wàllu lekkat lañ ko doon def boobu mooy gën a gaaw jàpp dafa mhm. mel ne fas fas bu ñu xamoon bu njëkk xas lay doon boobu moo nekk mooy waaw xañ xanc mhm. lay doon xanc lay doon loolu mooy li nga xam ne cosaan la ñu fekkee garab nga koy dindi nga fas ko boobu mooy gaaw jàpp yi nga xam ne mooy fallaay wala ay wëñ bale moo gën a gaaw incha allah foofu la wutee dafa mel ni jamono bu ñu toll tey nga gis nit ki di rat mhm. jël ay bool wala jël ay pëll di mhm. rat si loolu musul am mhm. lu ñu doon rattee law bi ñoo ko doon yett si àll ñu jox ko ratkat yi loolu moo amoon kon dèjà dafa dem bo ah, jamono bi changé mais bu ñu changé loolu rek euh, mooy wàll li ngay wut da kay koy yéex a am presque mm-hmm. yaaw déplacer affaire bi tuuti moo tax waaw incha allah macha allah am na benn sunguf bu ma gis sa mooy wàllu bii nii mhm. waaw mooy wàllu bii nii wàllu sunguflu nit yu weex la mm. mooy tubaab wala naar wala yu mel noonu daal incha allah bokk ci si yii mooy seen sunguf incha allah rabbi macha allah am na solo mm. eh, Cheikhno Amadou Sow joni joni moom la ñu àndal ci jotaay bi la di xalimba gu ñëw ngeen mën a jaar ci numéro yi affiché wu ci suufu écran bi jokkoo ak moom diis ko seen ay ajo waxtaan ceeg moom ngir mu defal leen ci ay saafara eh, sénégalais yi nekk bitim réew mm-hmm. mm, am problème lool ci wàllu liggéey des fois. Mm-hmm. foo di jaar. waaw euh, ñi nekk extérieur yëpp euh, bu fekkee wàllu nit ki nga xam ne mu ngi extérieur dafa bëgg wàllu liggéey wala wàllu li nga xam ne càngat wala lu mu munti doon ci kaw suuf daal bu fekkee mun naa ko incha allah bu ñu jokkoo téléphone bu ñu waxtaanee ba d' accord bu fekkee bagage bu mu war a jol incha allah am naa GP porte yuy dem si àdduna bi fu ne mais bu fekkee wàllu li nga xam ne mooy wàllu fii la bu ñu waxtaanee ba d' accord mun nañ ko def képp ki nga xam ne nag. jox na ma sa dërëm incha allah rabbi fu foo munti nekk si àdduna bu fekkee da nga soxla jot bagage bi incha allah da jot bu fekke da nga bëgg tamit ñu defaral la ko fii mhm. yaa xam daal incha allah noo ko bëggee incha allah bu dee wàllu kayit la moom itam am nga ci pexe waaw wàllu papier am na si ñaan yi nga xam ne lu wér lay doon yu wér defar ko du benn du ñaar du ñett bu fekkee amoo kayit yàgga nga foofu wala yàgg ko foofu il faut que ma xam ko fi nga déposé kayit yi il faut que ma xam foofu tamit xam nga tubaab yi moom bari lu yi nga xam ne xam nit ki nga jox sa papier. Mhm. léegi nga xam ne ay du ñu booloo lay doon mais bu fekkee béréb bi xam nga tur béréb bi rek incha allah loolu laa si gën a soxla lim lay jox boo moo ko jokkee ba nga yóbbu ko foofu incha allah boo ñëwaatee foofu da nga gaaw jot sa xayit incha allah. macha allah léegi nag ñu dugg ci wàllu actualité waxi jamono. Mhm. réew mi des fois coow yi yëngu ba nga jàpp ne réew mi sax dina takk dëgg la Sénégal am na kaaraange ci wàllu baatin waaw Sénégal mag yu njëkk fii def na fii baati ni nga xam ne euh, pour yàq ko day xaw doy waar mais euh, jamono day dox ah mm-hmm. li bon di gën di yokk presque mooy li lu tax ma wax loolu mm-hmm. boo xoolee jamono buñ toll ti euh, nekk nii tey dafa yàqu lu tax mu yàqu nag lu ne mu ngi si biir lu ne si nag surtout wallu ñi nekk si média yi ak wàllu suñu génération yu nekk si média yi wàllu ñaan affaire yooyu di wax xaw yi ay sutura doomi aadama nga jàng téere yàlla bi li yeneen wax ak li yàlla wax bo pare nga taxaw si média yi xaw yi sutura doomi aadama mel ni yow doo doomi aadama loolu dafa xaw a doy waar mhm. lool pour jàmm am foofu dina xaw a jafe mhm. mais lu si des nag mooy wàllu li xam ne euh, wàllu réew mi wàllu politique bi mhm. lu wax rek magum jëmm ku taxaw si média wax troisième lii du si am mhm. population bi yëpp àndu si mhm. nit ki dafa war respecté kàddam comme monti doon nag ci kaw suuf mhm. bàyyi woo ma kenn mais lu ñu ñaan daal jàmm ak salaam na sax si réew mi loolu la ñu ñaan yàlla nañu bañu foowee réew mi ak li nga xam ne mooy askanu doomi aadama yi incha allah nañu bay euh, ñi jiitee état yi nañu bay utiliser doomi aadama yi nga xam ne jànguñu gëstuñu xamuñ si leen dañuy utiliser seen xel ak seen xalaat bu ma am njort Euh, président bi fi nekk mën na laaj troisième candidature. ñëpp ñoo yem moo tax ku fi toogoon lépp da day jéem loolu. Mhm. waaw kon dèjà dama weddi daf koy laajte. presque gisuma lu mu munti def moroomam ñi passé jaaroon fii yëpp noonu la ñu defoon mu suma gis fi nga xam ne ku fugg den ndam wax lu mu defoon ba pare comme ñaari man na def ko nga dem sa yoon musuma ko gis si biir Sénégal incha allah mais la ñu respecté seen wax daal laal mun a wax incha allah. respecté kàddu mhm. maanaam ci réew mi mhm. doon loo xamante ni lu jafe la mhm. euh, ngor gi fi nekkoon dignité gi daf fi jógee wala waaw xam nga dèjà fu ñu tol nii tey moom euh, mooy Mansour nit mooy wàllu kàddu mooy nit wax wax mooy nit kàddu mooy nit wax bi heure bu feebare rek nga xam na nit ki def feebar loolu mooy lan nit ki lu mu waxoon boo gisee changement tuuti rek yow xam ne nit ki lu mu ak li nekk fii ni bokkut voilà loolu boo gisee ma wax loolu bari na tey si wàllu politique bi mhm. kon déjà politique bi dafa mel ne daal dañu am beneen beneen planète mooy beneen adduna mhm, mhm, bu bokkul bi ñu nekkoon waaw ñu am tamit beneen yàlla bokkul ak yàlla bu ñu gum aw ak ni ma gisee man peut-être nit ki day taxaw si média wax léegi léegi ba pare taxaw fale weddiwaat boppam mooy li nga waxoon doo jëfee woo ko ba pare nga taxawaat nga ne man politique la politique nii lay doxee kon dèjà dafa mel ni ñoom dañuy yor beneen planète yor beneen yàlla bokkuñ ak ñi nga xam ne li ñu jullit yore mhm. waaw man noonu laa ko jàppee daal incha allah am na solo mu doon message boo xamante ni euh, li ñuy wax euh, ku am xel ku nekk euh, mën nga ko dégg donte le li olofay wax wax ju yegg dof moo ko moom mhm. Thierno Amadou li ñu amoon ci temps jeex na ma bàyyi la nga tàggoo waaw maa ngi nuyu ñëpp nag sant ñëpp surtout nag suñu wallu gaay yi ñuy si biit sokoor yi mhm. wax nga dëgg ma ma ñëw sax foofu balaa nga tëj euh, Sénégal euh, bit sukkur bi nga wax noonu di nga ci ñëw mais da koy boole waale ak euh, ñu ngi waaj pour dem coupe du monde. am nga yaakaar dinañ fa jëlee ndam ginnaaw boo paree ci bit sukkur. waaw boo gisee si loolu presque Mamadou Diallo bi yoo yor bit sukkur yi dem xam. Mhm. depuis moom muy football nekk Afrique du Sud bari nga xam ne suivre ñu. mu nekk Afrique du Sud nekk foofu ay clip. boo tey yàlla def mu ñëwaat si Sénégal avant muy yor bit sukkur yi. Mhm. am na ñu si wax. mais yàlla dem na ba yóbbu ko moo am ay matcham yëpp amul benn défaite mhm. boo jël coupe afrique bi kon déjà gis naa si moom ay qualité yi nga xam ne bi diwa moo toll foofu mhm. na góorgóorlu si kanam mën na am li lu ko raw surtout nag ñu jëm si wàllu coupe du monde bi soko ak lone mhm. ak coupe du monde sport coupe du monde sport tamit bo ñu jàppante tuuti ak li ma waxoon si coupe d'Afrique bi rek incha allah mun nañ si am yu ñu weesu li nga xam ne amoon nañ ko si coupe d'Afrique bi mhm. mun nañ am lu ëpp loolu ndax bu ñu booloo rek lépp mën na sotti incha allah li gën a bon si àdduna mooy gas ñii di suul ñii di gas ñii di mhm. waaw loolu moo gën a bon si àdduna mais lépp li nga xam ne ndam yi tiim si si kaw Sénégal bari na lépp li nga xam ne xañ na si biir mun nañ ko am incha allah rabbi mhm. nañu ñaan yàlla daal euh, euh, jàmm ak salaam réew mi ak sport bi lépp luñ ci mun séentu ñu am ko incha allahu rabbi maa leen nuy maa leen sant eh, seen group eh, mm-hmm. suñu gaal 24 bàyyi wuma kenn daal mm-hmm. góor ak jigéen mag ak ndaw daal bàyyi wuma kenn incha allah jërëjëf Cheikhno Amadou Sow moom la ñu loon tey ñu gën koo xam ci jooni jooni waaye itam ku nga xam itam xam ne mbiram lépp jooni jooni la fi nga koo saafara wala boog fi nga ko tawatee say jàngoro fa la koy saafara ci kàttanu borom bi ngeen mën a jël numéro yi ci suufoo écran bi jokkoo ak moom moo xam seet la moo xam lu mu mënti doon ubbeeku ngeen bëgg wala kaaraange ngeen bëgg wala sax ni mu ko waxee làpptaake ngeen bëgg ak yi nga xam ne yëpp waxtaanee nañu ko fi bu ngeen ci jokkoo ak moom rek mën ci am li nga xam ne moo di euh, xel mu dal ngir efficace bi nga xamante ni nekk na ci liggéeyam ba tax ñu tuddee ko joni joni sant nañ leen gërëm leen bu baax a baax ci topp geeg teewlu gi rawatina jotaay bi la di xale bi gu ñëw jox leen dig dajee lu dul yàgg ak beneen gan jaa ngeen jëf.